fi la ko gars yi tege loxo ci aéroport international Blaise Diagne daal ko yóbbu ci chambre bi nga xam ne fa la ci diwaanu Ndakaaru yéen kaay gi ne fekk nañu fa ay reçu transfert d'argent yoo xamante ni ca Qatar la bàyyi ko yéen kaay gi di Le Quotidien ak Vox Populi ak L'Observateur ak L'As ak Rewmi Quotidien xëy ci building administratif bi nga xamante ni ni ki démb jekk-jekk gis mu tàkk mu daal di jaaxal ñëpp yéen kaay gi nee na dafa am benn entreprise boo xam moo fa doon def ay liggéey ne nee na defaraat immeuble boobee quarante milliards yoo xam ne dugaloon nañ ko sa ngir lu jëm ci wàllum réfectionné ko maanaam daal di koy yeesalaat marché boobee sax nañu ko joxe woon a coow li daal nay bëri tey ji nag gis ngeen la nga xamante ni moo xewaat ca building administratif yéen kaay gi di direct news ba léegi moom bàyyeegul te wàcceegul trente milliards yi nga xam ne moom la ñu bëgg a def ci tenue scolaire yi yéen kaay gi nee na est yi maanaam farata yi nekkul feneen yéen kaay gi de la turbine xëy na ci ay financement yoo xam ne coow li bëri na ci lool ci Sénégal te Macky Sall moo ko def def financement yooyee bi ñu ko xayma toll na ci mille cent vingt sept ci lu jëm ci wàllum terre maanaam train express régional bi nga xam ne demul ci nga dikkul mbay laara ak lu jëm ci centre Abdou Diouf ak lu soxal wàllum arène nationale bi nga xamante ni ba léegi mbir mi xamuñ dañu ko may wala ñun ñoo ko defaral suñu bopp ak lu jëm ci wàllum BRT bi ak DDCNT bi yéen kaay gi nee na en tout cas ay investissement la yoo xam ne coow li bëri na ca loola yéen kaay gi di wal fajëre xëy wax ci lu xam ne moom la ñu dëgmale ak coalition bi nga xam ne opposition bi jamono ji daan nañu koy teg waaye nag journal bi andi ay leeral nee na lan moo tax grand yi nanguwu ñoo ànd ak ñi nga xam ne ñooy xale yi yéen kaay gi nee na Ousmane Sonko Karim Wade ak Khalifa Sall dañoo mel ni dañuy bedd ñi nga xam ne ñooy xale yi moo tax journal bi xëy bind pourquoi les grands ne veulent pas les petits yéen kaay gi di enquête nee na en tout cas li am jamono ji gars yi ñoo ngi def ay manœuvre ñoom Ousmane Sonko naam ñoo ngi leen di critiquer waaye nag jamono ji daal ñoo ngi xool ana nan la ñuy waxtaanee ak Serigne Mansour Sy Djamil ak waxtaanee ak Aïda Mbodj ak Moustapha Guirassy ba andi leen yéen a gi di réew mi quotidien ci xalim ak Assane Samba nee na est-ce que Ousmane Sonko mën naa rester ndax nag politique bu Sénégal dafa am noo xam ne moom la tëddee ci réew mi te politique bi dafa tërëti ndax Ousmane Sonko gis nañu mu def ab alliance ak Karim Wade Khalifa Sall te ñooñu ci système bi la ñu bokk waaye nag mënuñu jàpp ne Ousmane Sonko dafa daal di deltu ginnaaw ci conviction yi nga xamante ni amoon na ko waaye nag dafa mel ni sax amutul choix ci mbir mi ay réalité politique moo ko dàpp yéen a kaay gi di Sud Quotidien xëy wax ci élection yi ak Macky Sall nan lay def ba lijjanti jafe yi nga xam ne moo nekk ci réew mi ndax bëri na ay xale yoo xam ne amuñu liggéey inondation yi nee na cobbee ci réew mi njëg yu bare bari dafa yokk ba maara day taali nii nga xam ne moom la ñu yore coronavirus bi maanaam gestion bi daan nay gëll góosee lii ana nan la Macky Sall di ko mën a layelee ci élection yi nga xam ne moom la ñu dëg ma la yéen a kaay gi di réew di quotidien ak Le Soleil xëy ñu xibaara naan ñu ki nga xam ne ay jamono moo fi nekkoon njiitu réewum Càdd di seen te mu faatoo ci réewum Sénégal niki démb daan nañu koy jébbal boromam ci armée lu Yoff yi yéen a gi di Libération inondation yi ca diiwaanu Kër ma Masar ak entreprise bi nga xam ne moom moo gagné woon marché bi te liggéey ya jamono jii demul ci nga dikkul mbay laara journal bi nee na société africaine hydraulique électricité moom la ñu joxoon lu toll ci benn milliard yu fekk juróom-ñetti téeméer ci ay millions ba ñu ko koy jox inondation yi amagul ci réew mi maanaam ñeenti weer afan nawet bi te liggéey ya ba léegi mbir ma dafa tagga témbe ndax am na ñaari électropompe yoo xam ne maanaam doxala yéen gi de la turbine xëy di ñu xibaaral naan ñu am na dil boo xam ne daan nay kalaate jëm ci wàllum inondation complication yi ci gox bii di Kër Massar yéen kaay di réew mi quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu docteur Pape Amadou Ndiaye mi nga xam ne ab ophtalmologue la daan nay wax ne coronavirus bi mën naa jaare ci bët yi kon gars yi bay boo ñu jël ci seen i matukaay ba tey ci biir surnal bi nee na Mohamed Balde ak Ibrahima Balde ñooñee maanaam ay magarak lañ dañoo jàpp benn policier boo xam ne policier bi daleen doon laaj masque ñu jàpp policier bi dóor ko ba maara day taale na leen fa mbaxana doone benn yéen kaay gi di esat xëy wax ci mondial beach soccer ak bi Sénégal bi nga